بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سان إلهي بالمناجات وأبدا أخنا يدي عن هاديا سان إلهي بالمناجات وأبدا أخنا يدي عن هاديا والصلاة والسلام على أشرف الخلق sayidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin sant buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salawatu rabbi alayhi sant suñu yaakaar tey ëllëg di xaadimul mustapha cheikh ahmadou bamba di ñaan sëñ Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naalal xaadimul mustafa mu eggale ko def ci lu raw ña ko jiitu woon defoon ci mbir mi te nu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ngërëmal sëñ Tuubaa di sant borom dëkk bi di ñaan sunu borom taasuñu ci barkeem muy maam Cheikh Mbakke boroom dërëm a ngërëm di nuyu bu baax sëriñ Abo Mbakke di sunu wëlëre bu yàgg yàgg ëpp na ñeent fukki at ca Ndar di nit ku baax di siyaare bu baax itam sunu mbokk. maak sëñ Fallou Galas ca kër yaaba di sëriñ Cheikh Anta Mbacké di sunu mbokk ci wet yëpp di sunu xarit di sunu wëllëre yal na yàlla guddalu fanam te dolli wéram ci dara darajay xaadimul Moustapha di nuyu bu baax sëñ Moursala si mi ñu fi fekk di nuyu bu baax sëriñ Cheikh Abdou ak bokki Daaru Salaam yëpp euh, ma leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di nuyu njaboot sëriñ Touba gépp di bég bu baax nag ci bis bii nga xam ne Serigne Fallou Gallas Sylla moo ko amal di ci sant sëñ Modou Rokhaya tudde ko sëñ Ahmadou Tindodi di fàttali la leen jotale woon ginnaaw ba nu sante sunu boroom ci ñii fi jël kàddu muy Ahmadou njay ngiraan ak ñi fi jël kàddu ñëpp ci seen wax yu sell li ñu fi wax kenn munta wax lu ko gën a yiwee xanaa dañ ciy topp rek waaye sëñ Fallou martabatu rajuli bi xusni aqlihi kawek doomu aadama mi ngi ci rafetaayu xelam xel mi nag ba nu ko suñ borom joxee la wàccoo ak ñun nooy seet nag nun ko jëfandikoo ndax du wàcc moom naan defal nii defal nii loolu lañu fexe ba mu wax wala xadd karam naa bani aadama loolu lan gën a mbindeef yëpp wa xamalnaahum fil bari wal baxri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا sant buur bi lii xalaat bu rëy rëy la ndax kenn ci ñi nga wax ñépp kenn ku ne mag nga référence ab royukaay nga waaye xalaat bi fikra bi mooy jamono dafa am lu mu tëdde ne neen daana am ca mag ña ku ci sol tubéy walla mbubb nga jël mbubu niroog moom wala mu xaw a niroog moom sax duñ bokk nga gaar ko nga gaar ko loolu ci mbokk gee tax may wax ñu baax mbokk ñooñu lañ daan def waaye moom dafa dem ca marché ba dafa bay ba am xaalis bu ko lew ci mbay mi mbay li ko gën a lew bariwul mu dem ca marché ba jënd fa piis bu bees taq ñëw solal leen ko moom gaarul loola la def moom sëñ fal ci jëf ju rafete nii noonu laa ko mën a misaale kon alhamdulilah ñu ngi lay sant bu baax euh, sëñ Modou Rokhaya day man yàlla dogal na ma am baaxe na ma ma xamoon ko am na kilifa réew mi goo xam ne booba gën naa di ndaw ñu daan ma ci tooñ ci bokk naa ci ñi ko fi dugal daane ki waaye nag ca nag booba mu ñëw ñu ànd kër sëñ Aliou ci otoom ànd kër sëñ Modou Rokhaya mu wax ma ay kàddu yu am solo ci sëñ Modou Mamoun ndax fekkoon na ko fi ñu ànd kër sëñ euh, Modou Fati Xari ci kër ci sëñ sëñ Cheikh ànd kër sëñ kër yu bare bare bare booba xëy na ci loolu lañ tolloon waaye ca la yem nag ndax ca la ko yemale daaniki ndax ku am sëñ tubaa lenn du la jaaxalati su fekkee dëgg la ci yow ndax bàyyee nañu loo xam ne muy turaasam bi ak aw yiw ak daraja ak sopp muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci barkel bu loolu bàyyee nañu loo xam ne du jeex ba mukk kon moo di ngor gi moo di jom ji nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla loolu kuñ ko bàyyal ñàkkatoo dara kon alhamdulilah sëñ Fallou ñu ngi la ci sant bu baax waxtu wi nga ko defee day waxtu woo xam ne moom la ndax dangay ngay jàngale am jàngale la lii jàngale la ndax képp koo xam ne yaa ngi déglu réseaux sociaux yi fi ñu toll wax dëgg yàlla surtout fan yi euh, su fekkee nitu dëgg nga walla nga bëgg lu baax sa xol tàng na danga am lu la metti li may wax nii sax mën na cee bañ a mucc waaye danaa ko layal ndax sama xarit sama soppe di koo xam ne sëñ Tuubaa jaral na ko lu ne moo ma fi woo tudde sunu waajur bis bi di ko terale sunu waajur ci këram kon sañ na ma wax ak moom waaye li ma koy sañ-sañ du tee danga gis bu ëllëgee danga gis ku mën a dagg benn baat bu bu tofal towul loolu baat ba jëkkoon fexe ba dajale yeneen baat yoo xam ne fa mu koy jëmee du baax loolu yàq na àddina bi te noo bokk réew mi di ay bokk euh, waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu ñëpp ci senegal dañoo war a bëggante rawatina ñu topp joxoñu mag ñu baax ña xadimu rasul ñëw na fi muhammadu rasulullah jaral ko lu ne mu joxoñ ñu joxoñ boobu mag ñu baax ñi fi nekkoon maam alaaji malik maam limaamulaay sidi ibrahima ñas cheikh bu kunta sëñ Thiénaba mag ñu baax ñooñu ñëpp fa ñu jox ñoon seen mbooloo rek ñoo ne ci senegal di ay bokk ñépp di ay mbokk kenn ku ne lu baax taxoon laa kon lu baax loolee nga xam ne ci lañu euh, tegoon senegal ba senegal am jàmm ji rikkuwaay buñ ko fi jëlee euh, dana ngay dégg sax ay wax yi ñu koy jéem a layal neneen ne Eh, waxi ay wax yoo xam ne du jëm foofu waaye eh, français bi tubaab bi colonialiste bi dafa yàq bopp yi ndax Sénégal ñooñu liñ fi jëmbat bu fekkoonte ne njàng njàngale mi système d'enseignement bi fi waroon a nekk nekk na fi yaakaar naa ne bu loolu amoon nu topp mag ñii ci seen joxoñ yaakaar naa ne réew mi dana nekk tey deuxième Japon waaw waaye njàng moo xam ne du sa làkk dañ la ci nàmpatal meew moo xam ne nañu la bëggee nga mel ni rek ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy dressé aw fas bëgguma wax la ca des dañ koy dressé di ko tàggat noonu lañ lay tàggate ba nga juddoo la ñuy xam meew mi ñu lay jox ñu dugal la maternelle dugal la école xam étape yëpp ni bëgg nga mel ni ba agsi foo xam ne euh, buñ la bàyyee kiñ fi bàyyi woon te mu xonq lam leen daan defal lu ko raw nga koy nga leen di defal ci ci zéro ba pare boole ci tiitaru loolu sëñ bi musiba la moo xam ne colonialisme moo nañ ci dugal te moo indi complexe bi nga xam ne lépp luy njaag loolu la loolu rek moo waral lii lépp kon nag nañ delloo si njàngale moomee mag ña dañoo benn woon nekk benn damay wax ànd leen jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen taqalikoo mag ña loola lañ xamoon léegi nag danga gis buum gi kenn ku ne jàpp ci waaye da ngay dagg sa wàllu yóbbu <laughs> ñoom nag taqalikoo gi lañ doon bañ sëñ Modou Rokhaya li ma xam ci moom bari na trop bokk naa ci ñi ko mujj gis euh, nit la woon ku lewet nit la woon ku gore nit la woon koo xam ne jàm jàmbaare ku jàmbaare la maam Cheikh muy taxaw la moom la woon euh, boo nekkee ci wetam sax day mel ne yàlla de daf koo defal jàmm yoo xam ne boo nekkee ci wetam boo amee boo amee lenn jax-jaxi xol walla benn jafe-jafe sax day mel ne ku dugg ci hôpital ñu faj la waaw loolu la ko yàlla defaloon yërëm ñépp di nit ku baax ku jaxasoo ñëpp itam waaw lii Sëriñ Tuubaa wax yaa maalikal mulki yaa man jalaana ma xawadin irham jameel wara noonu Sëriñ Tuubaa yaatale woon jameel wara la wax noonu la meloon ci jikko ci xol ci xel ci xalaat ci jëf te te taalibe yëpp ci sell ak ci bëgg Sëriñ tubaa ak ci fonk lislaam loolu lañ xam ci moom ba njaboot gi ñu ngi koy wéel sëñ Cheikh gis nga ko laxasaay gi alhamdulilah jëf dafa ëpp doole wax te Daaru Salaam jëf lañuy def jëf loolu kenn mënu ci dara jëf mu ne su ko weddi jëf moo moo man lépp te jëf lu ñuy def alhamdulilah loolu nag ñoo ci ciy sant yàlla bu baax bu dee ki mu ko booleel muy sëñ Ahmadou Tindodi di ko fàttaliku te ñu bokkoon di jàng euh, néew na nga tàmbalee këram ci tuuba ba àgg Tindodi dox 300 mètres yoo xam ne mandargaam néewu fa néew na mandarga mu yiw moo xam ne moo xam dalaa jox kër moo xam dafa dugg tudd fa doom moo xam danga am soxla mu faj ko ba tindoo ji te loolu loolu la xamoon ñoom alhamdulilahi laa alamin kon Sëriñ Tuba wàccoo na ak ñun bàyyee na fi ñoo xam ne topp nañu joxañam bam agsi ci ñun ñu jàngal ñu loola àddina nag mbir lu mu gën di sori ñuy gën a mën a jalgati mbir ma ndax euh, sëriñ bi euh, bam nu tegee ci yoon woowu danga gis ñu wàll si ñoo xam ne xëy na nañ koy déggee boo defoon ab texte fii tey war koo traduire kee mën na ko firee ne kii mën ko firee ne kii mën ko lu àddina gën a dox rek ñu mën koo gën a mën a tasaaree neneen waaye ci kaw nag la waral loola mën a am mooy ñu mën a ñàkk a mën a jaar fañ bëggoon ñu jaar fa bu ci amee rek loolu du ci am tasaaroo du ci am sëñ Fallou nag loola la delloo si loola la delloo si tey kon ñu dellu rek ci njàngaleem Serigne Touba sëñ Modou Rokhaya daana joué rôle lu sapeur pompier daana joué rôle médecin lépp luy euh, defar doomu aadama rek daana joué rôle booba ndax day jël jikkoy loola teel la caa wax la mu xam ca wàllu googa ba bu dee ajoo loola mën a faju ci wàllu gune loolu la nit mën a defare nit sëñ Tuubaa defar doomu aadamaa ko fi indi woon roy na ko ci loola alhamdulilah kon yaatal gii sëriñ Tuubaa bëggoon dañ ko war a def mooy li may faral di wax garab gii mooy sëriñ Tuubaa ci la moo sax reen yi ci la sax garab nag day am daat am ay bànqaas ak i xob kon nag kenn ku ne na fonk reen yi rek di suuxat ñuy suuxat rek mooy sëñ Tuba mënu boole ñun ñëpp waa kër Maam Mor Anta Sali defoon royukaay lañu kenn ku ne sa morooma la gën sa bopp ñu won ko àddina muy xar baax xotti baax ñëpp roy leen ci ñu ànd ak xadimu rasul ba turaas bi si fii tey ñooñu wax dëgg yàlla loolu loolu mooy ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo xar baax xotti baax lépp ñoo ko def kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu mat di fàttali la euh, fan yi dangay gis boo gisee ñu bokk wenn xeet rawatina ñu bokk Serigne Touba di ŋàññante fan yi fexe nañ ba fu da fu daawul fu ku daawul génne rankoñ génne nga rankoñ rankoñ daan na ci dënn te loolu ëpp naa def Sëriñ Tuubaa moo nu boole kenn ku ne dangaa war bala ngaa solal kenn ki meneen mbubb nga sol ko ba mu baax walla nga natt ci moom ba mu jot ko nga sol ko ko muy mbubbum yiw waaw waaye ŋàññante xewu fi woon te sëñ Muntaxa it ñu gën ko bàyyi xel ci wàll googu xam ne mooy sëriñ tubaa ku fi mas a nekkal sëriñ Touba rek def na la ca war lépp ba def ca la mënul kon nag alhamdulilah euh, moom la ñu bokk kon yàlla ko yàlla yàggal lii sëñ Fallou lu rafet la euh, ndax maam Cheikh Anta jëfam dafa rëy ci yoon wi la tax xaadimu rasul rafaatale ko dëkk bi suñ maam fi la juddoo ñeneen ak ñeneen waaye moom la tànn jox ko jox ko dëkk bi loolee it moom sëñ fàllu Galas salaam joojee dafa ñëw ci moom ndax nitu jàmm la foo ko gis ba ñëm ngay jëkk seen li may wax defar rek defar rek te Sëriñ Tuubaa jaral na ko naf soom bakkanam waaw man ngaa def lu de waaye bu laal sëñ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa moom bàyyi ko fi rek ñu ngalal boo bëggee jubóog moom te yàgg na ci dafa gis nag lem taxul tebul tëb nag egsi ci lem gi ndax ku bëgg bëgg lem ñeme yemb alhamdulilahi rabbil alamin lii lu rafete rafet la loolu moo ci am kon euh, na nañuy waggarante di topp joxoñu Serigne Touba xam ne ko bokk Serigne Touba li may faral di wax ñaari murit yoo dégg ñu béejoo bu ñu béejoo rek am na ci ku gëmul Serigne Touba waaw waxuma laak nag ñuy xasante ak saagante bu ñu béejoo rek am na ci ku gëmul Serigne bu wér a wér laa xayra fi sumt anil xukmi kama annahu laa xayra fi l qawli bil jahli bu bu àddina ak foo xam ne wax dafa jot ñu wax ko ci lu nar a yàqu wala lu mën a doon kenn amatoo droit amatul droit noppi ci am ku am xalaat yu rafet waaye nag ñuy wax lu baax ngir jàmm am ñuy wax lu baax te moytu wax yu ñaaw yi wax bu ñaaw dëkkulul fen de fulul fa mu jógee foofu rek la jëm kon noo bokk réew mi naan jàmm jàmm ci la lépp xaj ci la lépp xaj kon ah sëñ Fallou tey def nga jàngale bu rëy rëy kenn ku ne ci lii la war a nekk. ñu fàttali mag ña euh, kenn ku ne yaa ngi xalaat. nooy amee ay vues ci say kii nooy amee xaalis parce que li may faral di wax ñeenti yëf la moo fi xew ñeenti yëf moo di dangay dégg nit nii la mel néew na ko koy wax wax ca lu baax walla mu wax ko waxin wu baax nga daal di gëm kooka te doo vérifier kenn ku ne it fa sa fa sa fa fa nit ki toll ci sa xol fa nga koy attee te doo ci seet yàlla ginnaaw nag euh, daraja ak alal ñoo xew day daal di indi buuxante ak giro ñaar yooyu rek dafay sës giroog buuxante alal ak daraja giroog buuxante rek fa sës ku munta jaar sa kaw jàll kon defalam noonu ñeenteel ba moo di ku yaakaar ne sax ëpp li nga ko dara mu iñaane la ko ñeent yooyu fu mu nekk jàmm du fa am kon nag dañu war a def mooy waaja la waaja waxoon ne gisatuma lu ma xam déggatuma lu ma gëm xamatuma fu ma jëm ma ne ko ah kaay ci Sëriñ Tuubaa te topp joxoñam jëfe ay ndigalam di liggéey di jàmm yàlla yéene ñëpp jàmm boo ko defee rek yaakaar naa ne danga tàmbalee am gis loo gëm xam fi nga jëm di dégg loo gëm kon sëñ fàllu lii day fay lu rëy rëy ndax dafa mel ne ñu bari lii dafa làqu woon nga loqar ci ko hmm? la sëriñ bi daan wax jamono dana àgg foo xam ne seenu ngëm la ngeen koy yóbbu ca seen moom nag daa dem ba roog seen mu lu ci foofu indi ko teg ndax néew na nga gis ñu xalaat lu mel nii te lii rek moo mën a defar jamono ndax jamono dafa lëj dafa lëj te fépp la lëje na mu lëje sax mënee su ko wax du la ñu mën a waxtaane waaye lii rek mooy garab gi delloo siwaat cosaan mag ñu baax ña seenu baax tënku ca topp ca seenub joxoñ di ko jëfe di ko waxe di ko booleeg yéene yaakaar naa ne buñ ko defee loolu rek ci lan mën a amee suñu voie de salut maanaam ëllëg yi suba alhamdulilahi rabil alamina mën na cee naate waaye nag élan bii réew mi jël fi ñu toll nii kenn ku ne loo xam ci sa moroom wax ca lu bon loolu maaro day taal yi dañuy dem ba na rëjj ci ñag ba daanu ca miir ba foofu lañ jëm te mënees na koo gàttandu ndax am na chance su patrimoine bi turaas bii fi nekk jóge ak turaasu mag ñu baax ñii fi nekk buñ ko toppee rek réew mi mën naa jóg jàkk bu baax a baax a baax kon nag nan delloo si xel yi te xam ne am na loo xam ne poñetu àddina jaru ko xiroo ba ŋaayoo bi jaru ko nan yéeneente jàmm nan mel ne nu bokk ndey ak bàyyi noo bokk réew mi noo ko bokk yéeneente jàmm mag ñi def nañ fi lu baax de ku ne mag ñi nangam ak i nangam ah bala ngaa xam jàmm de yi nga ñàkk ko waaw du gaaw a ñëw te bu demee dana yéex a dellu waaw bala nga am jàmm danga nga daj lu ne te bu demee dana yéex a dellu Hmm? kon alhamdulilahi rabbil alamina ñoo ngi rafet lu jataay bi bu baax a baax a baax di ñaan sunu borom suñu fàllu guddal saw fan jàngaleeti nga lii am jàngale la kenn ku jugati rek ci lu mel nii la war a roy bu yaatoo ci Sénégal rek danañ régler problème bi problème ba nga nii lii lii tey solution la ci solution yu bari ni ma koy faral di waxee ci njàng mi damay jëm ci xale yi xale yii nga xam ne tey eeru eh, internet lañ nekk ñu jox leen loo xam ne préparé wuñ leen wan leen la gën a bon lépp mu nekk xal nga xam ne bu dee ko xam sax aw xal lay doon ci moom xal mën nga caa togg bu fekkee yoon ngam xel waaye bu ca xel ma àndul mën nga caa lakk bu ko defee loolu ëpp leen doole ba ñuy gis loo xam ne mar day taali loola lu waaye loo yendoo yar ci kër gi benn seconde téléphone mën na ko yàq ñu mel ne loo yendee rab rek da nga daan tiréet nii rek li ñuy wax tricoté boo ñoddee rek lépp daal di yàqu benn seconde la ko mën a defar nag mooy ñu dellu siwaat ci jikko yu rafet yi makaarimul axlaaq yi nga xam ne ci lañ taggoon muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam jikko yu baax yooyee ñu mag ñoo ñu won waaw bokk na ci sëñ Modou Rokhaya mii ak sëñ Axma mi ñuy tuddee yëf bis bi jikko yu rafet yooyee ba léegi wax dëgg yàlla ku ca góor góorlu sunu borom mën na caa bett ki xéwal nañ ca góor góorlu te topp leen kon lii am njàngale la mais wax ci xale yi kon la ñoom la leen dese damaa gis ndakaaru quartier yu baree bari euh, ma am ci ay xarit yoo xam ne kenn dàqu leen a jàng ñu ngi jàng waaye kuréel lañuy def boo leen gisee ci école ba nga wëlbatiku gis leen li ñu sol bàyyi laat yi ñu sol defi kuréel da nga naan du ñoom kenn ku ne jàkkaarloo ak sa moroom lay sa yéene mooy la nga yéene ci sa xol yéene ko sa bopp moom nga yéene sa morom ngeen jàkkaarloo di jàng xasaayitu Serigne Touba di ko jëfe ànd ko yar yar bu mat sëkk loolee mooy awaniru xale yi ak yu mel na ñoom ak ci wet wàll gu mu mën a doon ci yiw yi fi mag ñi bàyyi woon kon euh, fii dafa am yu baree bari yu fi manqué moo di ki la yilifoon bàyyee la aw làkkam bàyyee la maninam bàyyee la xelam bàyyee la xalaatam tafas fas yéene euh, di la yefal boo saa yoo la yefalee ba nga duuf mu rendi la kooku boo kontee ci moom doo dem fenn doo dem fenn nan xam sunu bopp xam ne euh, génnu xeet moom euh, du la du la bàyyi mukk xeet wa di euh, yow ngay naatal xeet wa du la bàyyi mukk ngay naatal xeet wa kon nanu dellu siwaat li waroon fii na ñëpp gën a réfléchir ñu delloo si njàng mi boole ci ab yar waaw njàng ba fa ànd ak yar sëñ Tuubaa loolu lañu waaw njàng mu ànd ak yar loolu mooy éducation mais enseignement kese jariñul dara man ngaa jàng xam-xam jàng ba raw ci ba euh, yey xalima yi yey kayit yi waaye nag xam-xam ba bu fekkee àndul ak i teggin àndul ak sutura àndul ak lenn lu dul ay waxante lu ñaaw xam-xam boobee day mel ne koko moom day mel ne mbaa mu sa fi téere loolu rek lay doon kon nanu xam ne noo bokk réew mi nanu yéeneente jàmm kenn ku ne la nga yéene sa bopp lu ko raw nga yéene ko sa morom ci wuyu ci lu baax loola day lanu mag ñi jàngaloon alhamdulilah ñii day ñu sëñ fàllu joxañ tey jii noonu la ñu meloon kon nag yàlla na yàlla yokk seeni leer ñu ngi sant bu baax a baax a baax képp koo xam ne teewoon nga fi ci bis bi te bis la boo xam ne nag yu mat a lu mat a euh, yokk la bis képp ku amati bis ku ne war ngaa roy ci euh, lu mel nii sëñ Fallou joxe nga tey leçon boo xam ne bu doon ci Sénégal ma ne bay nga ci sa waar ndax bokk na ci li nga xam ne solution la waaw ni ko sëñ amoon Ndiaye ngeer ngeraan waxee léegi waaw am solo la war ma jooju nañu war maalante du wàññi dara wàññi dara wàññeentey weex weex jëriñul dara nañu xam ne mbooloo aljamaatu rahma buñ koy wax mooy mbooloo mu baax mu ànd jëm ci aw yiw jëm ci mbaax loolu rek a tax ñuy wax waaye bu dee mbooloom kese rek taxul ñuy wax kon nag alhamdulilah nañ jéem a àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay xam ne noo bokk réew mi yéeneente jàmm kon Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla def fi jàmm barkeel njaboot yëpp bàyyiwuñu kenn waaw Sénégal gépp ak fu fu waay mën a nekkee sénégalais yàlla na yàlla defal jàmm ci darajay Seydul Wujud bi barakati Cheikhul Khadim ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan bis yu mel nii sëñ Fàllu nga yàgg koo taxawal ñu yàgg la fee fekk ci darajay Muhammadu Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu